loolu waral ba léegi soo ngeen seetloo bu baax samay tànk bëriwul noonu ci Casamance parce que seen pexe yëpp mooy fexe ba defee ko foofu ne diggante moom i ki mbokkam la kon suñu avertiré ci lu mel nii te bis bu nañu andil ñu bu bees duñ ko xeeb waaye ku bëgg jàmm dëgg dëgg dëgg dëgg ci réew mi ku bëgg sa jàmm bopp bëgg sa jàmm njaboot ak loo yaakaar ni moom nga yor ci doole bu la dara dugal ci yenn yi loolu rek laa ciy wax maa ngi leen gërëm di leen sant euh, ci déglu bi. xew dafa wanewaat rek ni justice amul indépendance au Sénégal may masawu nag magistrat yu bëree bëri li ci ëpp nga xam ne ay góor lañu ay patriote lañu ñu jub lañu ñu gëm seen liggéey lañu. waaye ñu leen di xeex di leen xoqatal ak di leen ber parce que suñuy nomee ci yenn poste yi dañuy dem seet lu gën a nooy ak lu ñu garo gën a mën a manipuler moom la ñuy dem jëli ku ci am dignité am am personnalité ñu jàpp la sànni la fële fële ci xaj loolu mooy li fi xew li ko andi nag mooy président de la république ak ministre de la justice waruñoo siéger ci haut conseil de la magistrature loolu xewi na fépp munoo am séparation des pouvoirs ci cadre boobu te tontu bu ministre bi tontu kenn ci juge yi ko ne lii nga def du yoon am courage wax ko ko fa mu ko ko war a waxee ci kanamu président mooy dañoo soxla foofu ay magistrat euh, ay juge euh, d'expérience loolu wane na ni c'est l'exécutif qui choisit ses juges ku la ku la ëmbal nag wala ku la bal ay gët fi mu bëgg nga xool ngay xool looloo fi am kon bu ñu kenn wax indépendance de la magistrature loolu amut ñaareel bi mooy ñi ñu tànn ñëpp man annoncé woon naa ko bu yàgg su ngeen demee sama post bi ma def sama page Facebook le 14 juillet laa ne woon euh, ki ñuy wax euh, Amady Diouf la ñuy yóbbu procureur loolu tax dossier 94 milliards yi nga xam ne mu ngi woon ci kaw taabalam mu gaawantu def ko classement sans suite ci loo xam ne du dëgg ndax ba mu koy def boobu jamono euh, chambre civile tribunal hors classe de Dakar jël na décision ba dëggal ma ba ne nañu delloo famille Thiandoum intégralité titre bi loolu nag suñ ko waxee mooy 94 milliards yi ñu jox jàmbur xaalis bu ñu sàcc la xaalisu réew mi la bu ñu jox ay nit ci loo xam ne moomuñu ko ab juge ni muy gisee loolu nekk chambre d'accusation gaawantu ne maa ngi koy classé sans suite te lan la wax ni tax mu classé ko sans suite we weddiwul ni càcc gi am na de mais nee na kii yoox wëpp sàcc yi du moom moo war a yoox wëpp sàcc yi masalan sàcc dugg na cib kër dajji ko porfor baay ji di daw doom ji gis ko ne wub sàccee gars yi ne noonu doom jee war a wax bàyyi jee war a wax loolu ab magistrat dina ko wax léegi nag tey jóbu nañ ko procureur dina ko fekk rapport nag ndax nag def na rapport am déposé ko octobre 2019 ne Ousmane ko li mu wax yépp dëgg la te maa ngi demandé la parquet mu ubbi ay une instruction judiciaire contre ñi nga xam ne ay escroc lañu Serigne Bassirou Gueye teg ci tànkam kooku moom histoire dina retenir ni musiba magistrature weesuwul kooku te nag dafa yàgg a yuuxu moom sëñ Bassirou Gueye ne Ousmane Sonko dinaa ko tëj fu ne mu wax ko en ma en boo xam te mosuma koo gis xanaa ci télé ñu ne mu wax ko menacé na ma fii ci ay conférence de presse dem na ba ma fi de te yéen néeg la te keroog bi mu amee dossier ñu ne ko dossier Ousmane Sonko la ñemewu ko woowu ma jàkkaarloo man du dul dem jël ndeysaan dem la sàmba Sall transféré ko dossier bi. lan moo ko teewoon yor na dossier yor na PV d'enquête yor na lan moo ko teewoon mu wooma dafa daw parce que ci complot bi la bokk léegi nag dem na pale dina fa fekk soo maître es complot ñu ànd di complot. kon kii mënul nekk procureur buy regle problème bi Macky Sall juróom-ñeenti weer yépp da doon ut lu lu lu mel ni ñim fi bëgg a jëlee wala lu leen yées parce que yàgg naa ko wax lii di poste procureur lii poste doyen juge cour suprême chambre d'accusation conseil constitutionnel moom loolu mooy magistrature de na fexe ba téye loolu rek. loolu waral ba léegi soo ngeen seetloo bu baax. samay tànk bëriwul noonu ci Casamance parce que seen pexe yëpp mooy fexe ba defee ko foofu ne diggante moom i ki mbokkam la kon suñ ñu avertiré ci lu mel nii te bis bu nañu àndil ñu bu bees duñ ko xeeb waaye ku bëgg jàmm dëgg dëgg dëgg ci réew mi ku bëgg sa jàmm bopp bëgg sa jàmm njaboot ak loo yaakaar ni moom nga yor ci doole bu la dara dugal ci yenn yi loolu rek laa ciy wax maa ngi leen gërëm di leen sant euh, ci déglu bi loolu waral ba léegi soo ngeen seetloo bu baax samay tànk bariwul noonu ci Casamance parce que seen pexe yëpp mooy fexe ba defee ko foofu ne diggante moom i mbokkam la kon suñu avertiré ci lu mel nii te bis bu nañu àndil ñu bu bees duñ ko xeeb waaye ku bëgg jàmm dëgg dëgg dëgg dëgg ci réew mi ku bëgg sa jàmm bopp bëgg sa jàmm njaboot ak loo yaakaar ni moom nga yor ci doole bu la dara dugal ci yenn yi loolu rek laa ciy wax maa ngi leen gërëm di leen sant euh, ci déglu bi. loolu waral ba léegi soo ngeen seetloo bu baax samay tànk bëriwul noonu ci Casamance parce que seen pexe yëpp mooy pexe ba defee ko foofu ne diggante moom i ki mbokkam la. suñ ñu avertiré ci lu mel nii te bis bu nañu àndil ñu bu bees lu ñu ko xeeb waaye ku bëgg jàmm dëgg dëgg dëgg ci réew mi ku bëgg sa jàmm bopp bëgg sa jàmm njaboot ak loo yaakaar ni moom nga yor ci doole bu la dara dugal ci yenn yi loolu rek laa ciy wax maa ngi leen gërëm di leen sant euh, ci déglu bi. loolu waral ba léegi soo ngeen seetloo bu baax. samay tànk bariwul noonu ci Casamance parce que seen pexe yëpp mooy fexe ba defee ko foofu ne diggante moom ki mbokkam la kon suñ ñu avertiré ci lu mel nii te bis bu nañu àndil ñu bu bees duñ ko xeeb waaye ku bëgg jàmm dëgg dëgg dëgg ci réew mi ku bëgg sa jàmm bopp bëgg sa jàmm njaboot ak loo yaakaar ni moom nga yor ci doole bu la dara dugal ci yenn yi loolu rek laa ciy wax maa ngi leen gërëm di leen sant euh, ci déglu bi